moo fi njëkk a dugg euh, ci école normale bu tugal euh, école normale de cinq ci doomu Sénégal euh, loolu xawoon na ko siiwal tuuti ci réew mi ak it beneen xew-xew bi ñu ko xamal mooy dañ ko boom dafa gaañu ci kaso ci kaso wu gore bi muy am ñaar fukki at ak juróom-benn loolu la ko ñi ñu bari ñi xam ñi ko mësu dégg loolu lañ ko xamal ci tënk. Euh, ñu laaj ma ma jéem ko leeral yokk am lu ma ci yokk li ma ci doon yokk moo doon ne moom moo doon suñu taawu kër euh, fukki xale lu góor ak benn car macha allah amuñu woon sër te yàgg nañu bitim réew ndaxte sama papa bi mu paree ci jàngum docteur fii ci école de médecine africaine bu Ndakaaru bi ñu demee bay laate am indépendance Euh, au lieu de dugg ci gouvernement wu mon président Mamadou Dia parce que Masson dafi nekk directeur cabinet wu ministre Obey de faire bàyyi loolu ne mom day delluwaat jàngi daal di buub jabar jeeg domi euh dem tugal dem Paris foofu la mottali ay euh juromi at ben bi teg ci ñaari atu spécialisation kon ñun ñu bari ci ñun ñaan ci samay euh tugal lañ juddoo te yag nañ fa be ñu bari ci ñun mu lakkatuñu won wolof bi ñu ñibbi si <laughs> sama papa paré bi ñu ñibbi déggatuñu won wolof euh, dañ ko jàngaat be mu dess Omar te Omar mom, ñaari ñu rew mi la doon euh, lak, euh, di mu namp ci ndem muy wolof akit bambara bi nga xam muy sama papa di sama yaay ñi judo sama papa mali la sama yaay judo guiné sigiri sama papa tukoto la juddoo degon nañu bambara be mokal ko sama papa sax bambara la gënon deg ko wala sama yaay mo mokalon ñaar yi euh, léegi bi ñu sama papa dal di di wat liggéey nek médecin chef région Salo, ak yoy ñom sen waaye ñun muy omar di ki top ci mom di ousmane ak man dañoo toog tugal ndaxte suñu jàng dafa xawoon sori Omar mu ngi doon waajal concours école normal Ousmane mag man ñu dugg lycée Louis le Grand di fa def seconde maanaam ñaari atam ñu dese woon balaa ñuy passé baccalauréat paa bi ñibbi ak maire bi ak yeneen suñu yeneen rak waaye ñun ñett dañoo toog tugal euh, Omar bi mu duggee école normale bi mu admee école normale daal lañ ko siiwal fii ci réew mi te lu xawoon ko jaaxal sax moom ndaxte dafa ne liñ koy def coow. école bobu ay téeméeri ëpp yi ndongo ñoo dugg at ci tugal te ëpp na xarnu bi école ak euh, doon di doon doon ci doomu Sénégal mo euh, ci am maye bi mu ne daf ko bëgg gis sama dañuy président dafa bëgg gis damay wuti lu may wuti soxla soxla gis sangoor mu ne waaye Senghor soxna laa gis te kilifa la ci réew mi mënoo ko gàntu euh, paa bi forcé ko daal a ah, mu wéy ci ndigalu baayam paa bi ne ko léegi da ngay wot karaw yeeg euh, dindi afro bi euh, sol costume ak cravate mu ne loolu ëppati na mujjee na dem daal nangul loolu paa bi mais bi mu gisee article soleil ñu ko ciy yooyu daf ko jaaxal daal daf ko yéemoon ndaxte ci moom du woon dara fekk ci réew bi xew-xew bu rëy la woon beneen bi ci des mooy at benn at ci tegu bi mu duggee école normale beneen noppi bi am fa at la xew-xewu mai 68 am tugal foofu nag xaw nañ ci ko ci ràññee eh, ndaxte faculté de Nanterre fi mouvement du 22 mars bi soqee ko dégg nga maam euh, fa la nekkoon fa la bindu woon fa la doon jàngee parce que soo nekkee école normale da ngay nekk école ba pour jàng jàngale école de professeur école d'élèves professeurs. Vous da université pour faire ce cursus normal licence maîtrise euh, agrégation ou le doctorat a le mouvement de 22 mars si université Nanterre bi école nekkoon judo, judo, kon étudiants comme moi. ragné nañ ko ci dal ba nga xamné bi mouvement bi de mucciti <laughs> gan ci réewu France lañu ñu dàq génne leen France muy Daniel cohn ak Omar Diop ñoom ñaar rek lañu ñu expulsé de France loolu naka di sama papa lool ndaxte moom moom jàng moom <laughs> farata la woon ci moom moo rek la fay daaloon fexe na daal ba ñu delloo soit Omar euh, école normale pour mu euh, yeggal jàngam def agrégation am ak yóbbu seen waaye xam nga rek euh, nit ak i yéeneem euh, yàlla ak i dogalam bi mu delloo tugal ñun ñi tooyal suwaatoon Sénégal euh, am na luñ fi def ci ndaxte Pompidou moo waroon a ñëw dégg nga maam seet si sa xaritam Senghor ndaxte ñoom ñaar ñoo jàngoon doon ñun nag ñu jàpp ne tubaab yi sonal nañ ñu lott nañu moomuñu suñu bopp Senghor jaay na réew mi tubaab yi ak yooyu ñu. centre culturel français Bon, le ministère de TP bi nga nous euh, ñoo de dëkk bi Pompidou Pompidou ah, nous avons sax lu mat fan Ben fan euh, dafa de ay midi fi bala midi di le soir, fekk na di continuer tourner am ci Afrique

quatre jours après notre arrestation waaye xaw ko rey balaa muy de chaussée poste de police bu central bala mu ñuy fekk ñun premier étage fi ñu da doon nàcc bi muy parce que moo leen ndax té mom rek a desoon ci groupe bi te jàppuñu ko woon euh, xëj na euh, loolu daf ñuy solel ci Omar mais ci teunk dal bi ñu jappé tëj ñu ñu ci tribunal spécial mo jitu won li ñu woowee cour de sûreté de l'État euh, Omar euh, bi mu déggee ne maag Ibrahima Paye ñu koy woowee Jackie doon xaritam di sañu mag moo magoon sax Omar euh, ak man ñu tëj ñu perpétuité travaux forcés à perpétuité dégg nga maam Loum Camara ñaar fukki atu kaso Thiemokho Camara ak Sidi Gueye ku ci ne fukki at. sama rak Mohamed ñu ko doon tuddee Pape Ndiaye ndaxte man Pape Diop laa tudd sama turandoo maam bu góor la moom muy turandoo sama yaayu pap sama papu yaay euh, Pape Ndiaye moom bi nga xam ne mu ngi amoon fukki ak juróom ñu tëj ko juróomi at euh, ñi ci des ñëpp ci groupe bi lu ma toon daanaka ñaar fukki nit ñu condamné leen ak sursis kenn rek lañ ci bàyyi mu ñibbi mu doon dem si yàlla ay meru jaxate mu doon tailleur parce que groupe bi façon la ñu ne nga ci woon amoon na ay étudiant amoon na ay chômeur amoon ay musicien ay artiste ak yu ñoom seen bref Omar jàpp ne lii yëf yi daal ëpp na moom du toox di ko seetaan mu ànd ak suñu ay mbokk ak i xarit yi nga xam ne ni mu ko gisee woon ñoo bokkoon gis-gis ci mbir mi ñu jàpp ne dañu war a préparer wu ji pour libérer ñu libérer ñu nag <laughs> ni ñu ko bëggoon def dafa yéeme ndaxte dañoo bëggoon jël otage ambassadeur de France pour que comme ça ñu génnee ñu comme ça ñu soor a bàyyi ambassadeur bi mu ñibbi bi ma yëgalee loolu bi ñu demee entraînement dañoo dem ba euh, Syrie outil entraînement militaire ak ñoom seen bi ñu yegsee daal Mali fekk war nañu addusé yëpp jaaroon nañu Guinée jaar Algérie loolu lañ def ni jaar jaar jarul euh, euh, détaillé ci lañ ko xamal ne lii jaru ko. ndaxte kaso bi saa yu neexee génn ci boobu ñu nga for bee ndaxte moo xuma leen ko mais euh, bi ñu nekkoon cent mètres carrés fa la ñu njëkkee dañ fa euh, bi ñu fa jëlee alkaati yi ñu fa jëlee pour ni ñu forbe te ñoom syndicalistes yi ñoom Iba Der Thiam Ablaye ba Baba Guissé ak ñooñu syndicalistes yi nga xam ne bi ñu jàppalee bi ñu tàllee centre culturel ñoom la Senghor jàppoon comme otage parce que ay syndicalistes yu ko xawoon a sonnal la bi ñu jàppee taxul ñu bàyyi leen

gis nañu li ñi gars def ce qui fait que biñ ñu yóbboo ba noppi for bi indi ñoom Ibader ak ñoom seen bi ñu leen ubbee pour récréation rek bu récréation rek la gars yi taal kaso bi c'est la première mutinerie dégg na parce que jéem naa ko seet la récemment ci benn article euh, guleet la woon masul woon am mutinerie à la prison de Rebeuss prison centrale de Gorée lu ëpp juróom benn fukki nit évadé nañu si prisonniers yi c'était en février 1971 alors que ñun janvier lañ ñu Japon. d'ailleurs ñun sax février lañ ñu Japon, mais janvier lañ talon centre culturel français euh, la mutinerie a eu lieu je dis je me c'est le 4 avril exactement su ma mais c'est ce que xam yomb naa bref euh, Omar Dial, nee nañ ko bul ju mukk ba di ambassadeur ak ñoom Euh, demal toog Conakry xaar ñu foofu ñun mën nañoo génn kaso bi génn yegg Banjul te gars yi du ñu xam sax ni génn nañu foor bi kon nag demal toog mu yónnee ñu xaalis bi dafa def li ñu ko waxoon wante boobu jotule sax yegg Bamako jotule sax jógee yegg Guinée jógee Bamako Senghor ñëw visit officielle ak régime militaire bi nga xam ne moo daaneeloon Modibo Keïta le libérateur le père de l'indépendance d'ailleurs du Mali mais aussi du Sénégal parce que boobu Sénégal ak Mali benn le Sénégal ak Soudan pas une fédération du Mali bi ko militaire dans daanoo tëj y en a des si sont bi sax euh, régime militaire bu ay caporo ak sergent chef yi nga xam ne général la ñu mujjee jubawaat ak Senghor parce que Senghor dafa xuloo ak moom ak Modibo Keïta né dañuy visite officielle en 71 bi ñu euh Diap Omar parce que moo nga foon moom ak Paloma Alioune Sall ak euh, yenen euh, xarit yi ñu fa amone yàlla def bataaxal bi ma ko bindoon pour xamal ko ne ko jarul ngay jàppaan bu salaire yooyu dañ ko fekk ci poosam si suñu kër de si suñu kër Bamako lañ ko jàpp parce que sama seexu yaay ko la dëkkoon fa la doon sëy parce que dañ ne comme Senghor day ñëw te pendant le temps du régime Modibo Keïta opposant au Sénégal yëpp foofu la ñu gàddaay woon li ko dooree ci Mahmoud Diop dem ci yàlla bay di li lii Tidiane bay ak ñoom seen ñu bari foofu la ñu réfugié

japp fi suñu ay eh, sama jigen, ki ma jural sama taw ak benen sama mak ñangus eh, eh, bi nga xamne sama cheikh yaay ko juron xaritam bu jigen tamit bi bokkon ci suñu groupe communiste militant yi ñu dal di len japp ñom ñep atté ñu jigen la won waaw ñett ma ñent ak man wat nañ ma ak ñom Omar ak Paloma ñu condamné len nak jigen, yi rek lañ bayyi ñu genn ñom ñu téyé len ñetti at ñu tej len ñetti at man ñu dooraat ma juroomi at fekk amoon naa perpétuité ba pare donc il y a eu confusion de peine ni ñuy wooyee ci seen langage juriste et foofu daal la yëf yi yàqoo ndaxte dañoo comme gisoon feeñaloon ne suñu plan d'évasion ci le Collin euh, parce que Collin ci bésu butinerie bi ci ngoon si le ko Senghor nommé ministre de l'intérieur jëlee fa ki ko ki fa nekkoon di je crois clé dorsale wala Mamadou Cissé Dia xama nga kenn ministre de l'Intérieur, dal ci le ko Collin en 1971 djogé wu fa ba di Senghor ba Senghor jóge fi en 81 té bu mu fa jógee tamit mo don pour yé ci kaw nek dem présidence de la république comme secrétaire général ministre d'État. mais Collin djogé wu fa be 71 té bu fa djogé le jël ministère de l'intérieur té fofu tamit De dafa boof be Senghor di dem ci lañ ko délo commencé wat jox ay nit ñu ñuul ay doomi réew mi alkaati yi nga xam ne du ñu garde pénitentiaire mais doon ay GMI yu Jean colin jëlee Thiès indi leen Gorée ne ne leen ñii ce sont de dangereux éléments criminels terroristes bu leen jumbe di waxtaan ak ñoom ba di leen di won ginnaaw mun nañ leen jam mun nañ bu leen di mun nañ leen sol xel ak yooyu ci la alkaati commencé di ñu di dal suñu kaw daal mauvais traitement man maa nga woon Gorée balaa miñ may yóbbu Kédougou bi ñu ñu atté ba paré li ñu ñi ñom Omar ak Paloma indi leen gore ñu mag ñom Jackie ak num Kabara ñu yobbu ñu koy duggu les long peine ci wa ci fi ñom Mamadou Dia ak Ibrahima Sall ak Waljo Ndiaye nekkon fofu la ñu toog ba rek man bi ñu breyee Omar ba yëngal dëkk bi ak réew mi yëpp euh, ñetti fan ci top bala ma koy jaam ma koy ci sama radio par BBC la ko yéggé suba tel ñu ne couvre-feu état d'urgence au Sénégal à cause de la mort en détention de détenu Omar Blondin Diop jeune étudiant non la yégué déw Omar yaa ngi dégg euh, léegi bi ñu bayé dañuy bi génn parce que visite Kédougou amul won visite tok na fa ñaari at ak genn wàll amul ben yoon le ma sa sama yaay seet si ak sama mag Ousmane té bi ñu gaañee bi ñu boomee Omar ben noppi lañ koy soog visite boobu parce que avion nga waron la jël pour ñëw. Ben ñu visite Nous fa am ak avons amuñu fa benn visite diir ba ñu fa toog yëpp euh, waaye bi ñuy laate génn ba ñu ñu en 74 euh, mars 74 exactement la ñu commencé waat di am visite di gis nit ñi la ñu nettali nag la affaire bi demee fekk yàlla def sama rakk Pape Mohamed bi nekkoon ak Omar Goré fekkee na lépp ba nettali lépp paa porté plainte ci saa exiger autopsie fekkee autopsie bi def contre rapport d'autopsie, autopsie amee dégg euh, juge bi ñu joxoon dossier bi nak mom dal di inculper wa garde pénitentiaire Gorée yi nga xam dañu ñoo fa ñoo fa nekkoon ci bëss bi ñu dóoree Omar bi mu xam parce que feeñal na lolu bi mu defee inculpation alkaati yi rek matul semaine tamit ñu yëkkati ko de son poste de doyen des juges d'instruction. dal di fa euh, indi. Euh, benen juge bon Elias dossier. Coco daal moo toog ak toog genn ne non lieu doon non lieu sax dafa bind ordonnance d'incompétence mais lolu jarul wax parce que li ci ëpp film bi dina ko feñal li taxone Omar xeex be jaral ko bakkanam euh, ñun ñu and ci te bari ci ay euh, fi ne ben nga la wàlloo gëna euh, non seulement dañul mais dafa yok dafa gëna metti gëna ti ñaaw ni ñu di def ci indépendance bi sañu ñuko won té li ci war manam mbolo mi askan wi ndaxte pesum kanam nit koy fajal bopam dégg nga euh li ci euh ci notel bi bu mu jambi ñun ñoko wara do ba ask parce que mbooloo ci wara juk jóg te fii ak jëfuñu ko euh, yëf yi day gën di yes day gën di yok te bu boobaa nag dafay mel ni euh, ba kanam bi Omar ñak ñak na ko ci mali poro fek nak suñu liko taxone xex suñ ko sotalon be mu antu beri umi mi dégg nga maam ba mbooloo mi euh, gis tan ah, gis lu tane daal xuma sax li gën mais lu tane ak as néew bu boobaa mënoon nañu wax ne au moins sacrifice am am na njëriñ. li ko tax a euh, euh, wër àdduna si dafa uti woon doole ndaxte bi mu gisee li ko gën a metti mooy bi ñu dóoree yat bi di dóor ay ay xale yu nga xam ne. mataguñu woon sax majorité parce que ci jamono yoy ñaar fukkat ak ben la majorité du won fukkat kon ay mineur kenn ki 20 ans keneen ki 18 ans ñu door leen ay perpétuité ak 5 ans de prison ci Mali Poro ne te ne kanam a fajal bopam motax mu ak ñi mu la ñi nga xamne ne gis-gis pas-pas dañoo outil doole maanaam dañoo dem militaire parce que le service militaire n'était pas obligatoire à l'époque au Sénégal par exemple man si sama onze frères euh, kenn si ñun mosul def armée kenn si ñun mosul def service militaire alors que dañu waxoon ne service bi chaque famille tous les trois têtes ñu jël benn toutes les trois têtes masculines ñu jël benn mais ñun onze garçons mos kenn si mosul def armée mu ngi donc dafa jëkk dem euh, euh, Érythrée parce que il avait une lettre de recommandation là en ak Paloma du woon Paloma rek amoon na Ali Bathily tamit ci la ñoo àndoon ci njëlbeen hein ak ak Amadou Diallo mi nga xam mom tamit rakam a ngi woon bokk ci ñun ci ñi ñu jàppoon tëj leen waye mom dañ ko libéré ci procès bi ak sursis ñu dem ba yegg Palestine parce que wa Érythrée ñoo leen batale avec l'OLP Damas Damas exactement la ñu dem foofu la ñu jëlee entraînement après yëf مي في نقصاي يدلوات باري وتيوات توتي خالص دمات ألجي فك في بلاك بانت باتي اتسترا دال دن دون وتي دولي غير منا فاج سن سوخلا مانام آه، ليبري سيني كامارات باسكو دوان اي فرير امريك امنا اي كامارات يو خامني سيقو ني دارا مانام بوك ني دال مانام ا آه، ليغي لو ورال بوبو باس باس تي دوان ريك مبوك Euh, bokk gis-gis bokk yéene ak bokk euh, bëgg-bëgg moo waraloon seen taxawaay taxawaay bu mat sëkk na ngir suqali askanu Afrique rawatina Afrique sowu jant ndaxte li xewoon senegal moo xew Mali Côte d'Ivoire Mauritanie fu nekk rek xawoon na tane Guinée rek ci xawoon moom boppam ak as néew yeneen ni yëpp ay néew ko la woon donc euh, ci njëlbeen daal li ko yëkkati woon moo doon xeex colonialisme français ci Afrique mais li mu lànk nag bañ ba tëdd si suuf ne yoon biñ ko xalaloon du si jaar moo tax moo ko moo ko moo ko jaral bakkan moo moo moo tax parce que ñii suñu gisee ne aw nga xam xaw nga am tuuti loo ñàkk loo xam daal ak loo jàng ak loo mën euh, yoo xam ne soo ko jaayoon day jar euh, soo lankee ne doo ci jaar doo ko jaay doo jaayu bu boobaa dinañ la dëgg la ñemeeti dañu ne kii moom daf ñu naan a su dee bëggul bok ci pàccoo bi parce que dafa bëgg a yàq pàccoo bi ci boppam rajaxe ko tas ko jalgati ko kon nak bala mu ñuy fexel ñu fexel ko li mu lank ne du du du nekk le cadre le brillant cadre euh, euh, politiquement conscient et comment on appelle techniquement compétent <laughs> c'était ça le jargon de l'époque euh, bi ñu ko biñu ñu bëggoon mu doon biñu nandé nandee loolu nañ ne kii moom nañ ko lañ ko sakal pexe parce que bu boobaa su loolu dinañu yakal ki nga xamone ne mom moo moo moo mo moo dóor Omar bi mu xam dañu wo infirmier bi waaw kooku moom euh, te bi ñuy def quarantième ñun dañu tok ñen fukki at bala ñuy sulli mbir bi yaakaar ne Senghor ak i ñoñam jóge nañ fi sengor Senghor tu fi domam ak kiko wutu di dom ci mom Abdou Diouf tu fi ki mu ki royu kayam ki mu def kiko def royu kay di ablay wat tamit jóge na fi euh, ki doon woote ne doon bu boné man dama judd après indépendance donc man je n'ai pas la mentalité colonisée euh, di Macky Sall dañu yaakaar koku kooku dina am fitu

joxe na interview ci ben journalu Ndakaaru ci bés ba di sosal sama papa fekk paa bi gagné, na nekk waaw paa bi daa ne waaw ah, Omar pourquoi tu as fait ça bi muy tëdd ci bind ci néewu doom ji ak euh te loolu ay katch la yalla baal du benn dëgg euh, ndaxte paa bi am nañu ay note ci mu jël parce que paa bi il systématique de tout notre procès ak yooyu yëpp c'est enregistré en en note dans son carnet. Euh, il met bien au 10 mai 73 euh, assassinat de Omar Blondin à la prison de mon fils Omar à la prison de Gorée. Il n'a pas mis suicide. Bref, euh, a fait une interview violente pour attaquer le juge, le doyen des juges, qui avait inculpé, qui les avait inculpés tous, sauf lui, parce que même Dawafon, Dinkorowal. kooku tamit malheureusement gaañu na waaye des na ñëpp demuñu am na ñi fi nekk binna nga ni kon nag am na ñu yaakaar ne lu mu yàgg yàgg dinañ sulliwaat dinañ sulliwaat dossier boobu. gaa moom baal mën na nekk ku la tooñ te nangu ne moo la tooñ te balu la àq waras na ko mën a baal soo de nit soo dul rab. wante doo fàtte da ngay baale rek waaye doo fàtte moom yenn yi kooku dundee ba ba ngay dee doo ko fàtte en tout cas man de ma noonu laa